jërë ngeen jëf mbokk internetu bpactu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude di ci ñëw ak yéen saa su nekk ci seen xibaax ci réewum Sénégal ak li ko wër tey nag dañ koy daal di ubbee rek ak sucre bi nga xamante ni moom moo manqué ak diir askan bi mun ñu fexe ba teg loxo ci euh, sucre en poudre bi bekk bi la nit ñi di faral di am wala li nga xamante ni moom moo di euh, sachet cristal yi ina ko waa jàppoo nag ñu ci bari duutoon nañ leen baaraamu tuuma ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw pénurie de bi waaye def nañ ci ab sortie di duutaat baaraam ministère du commerce ndax jàpp nañu lii yëpp ñoom ñoo ko provoqué teg ci daal di at prix sucre bi ba askan bi mënuñu cee teg loxo jamono jii ñuy wax ak yéen mënoo dugg ci boutique ba fekk fa sucre wala boo ko fa fekkee sax aj nañu prix bi jaayatuñu ay euh, yenn ci détails yi comme sucre 100 francs wala 150 dinañu jaay par kilo ay kilo 700 800 jàpp jëm kaw askan bi nag moom jamono ji sonn nañu loolu ndax sucre dafa bokk ci li nga xamante ni euh, dañuy faral di ko soxla saa su nekk daal suñuy xibaar euh, ba tey ci inondation yi nekk ci réewum Sénégal ak li ko wër euh, diggante Kër Massar Parcelles ba ci yeneen zone yi jamono ji nag ñu teg seen tànk ci biti nekk na lu jafe lool askan ba euh, dëkkee nakar ak tiis seen ndaw yi mënatuñoo xëy ba liggéey ndax bu ñu demee euh, seen waajur yi dañuy nekk ci ay tolof tolof naka la ñuy def ba xuus ci ndox yi dem nduggi marché wala ñu xuus ci ndox yi dem boutique ba wala ñu def leneen ak leneen loo xamante ne dañ ko doon faral di soxla comme seen ay genre déplacement gis nañu yi ab vidéo boo xamante ne mi gis ndaw yi euh, dañuy fay ku ñu boot fay ko 500 mu jàllale leen ci ndox mi 500 aller 500 retour ñu ci bari noonu la ñuy def ba mën a génn euh, ci situation am na tamit ay boroom charrette yu fa toog yoo xamante ni ñoo leen di euh, dimbale ngir ñu mën a amal seen ay déplacement Sicap Mbao nag coow lu rëy rëy am na fa ci diggante ndaw ya fa nekk ak sapor pompier ginnaaw ba ndaw yi jëlee seen ay so ak. panne ngir ngàcc ndox mi jëmale ko ci beneen boor mën a am sax wàcce autoroute ndox bi ngir ñenn ñi mën cee xuus di doxi seen soxla waa te woon nañ fa ñoom tamit di def seen liggéey euh, comme ni ko seen euh, métier euh, soxale waaye coow ba fa jóge nag du lenn lu la waa sapeur dañ leen a jox ay directive ne leen ñu dem ci beneen boor dafa tuur ndox mi noonee nag la coow li jot jolli xeex bu metti am fa benn lutteur boo xamante ni cité gu ñu noowam daal di fay jël benn sapeur pompier at ko ba ci kaw daaneel ko ba mu am foofu noonu ay gaañu gaañu affrontement tàmbale woon na di am waaye suñu borom daal dina ci wis ndox mu sedd gën gaawee ñu daal di wéyal suñuy xibaar euh, ci génn ko àdduna bu Hissène Habré d'après information euh, yu ñu xëy daal di koy gis ci la une des journaux Hissène abre le 11 août lañ ko yóbbu woon ci benn clinique du Cap euh, foofu nag def na fa 10 jours ginnaaw loolu lañ ko testé euh, positif ci jàngoro ya euh, coronavirus ba mu jóge fa daal di dem ca diwaanu hôpital principal euh, suñu njiitum réew jox ndigal la benn spécialiste ngir mu daal di koy suivre waaye tamit wax médecin personnel la muy dem di ko xool saa su waaye nag boobu fekk na jàmm bi ak pexem yàlla ak dogalam kii nii di Hissène Habré daal di wuy ji suñu borom talaata ci suba vers 6 heures du matin Euh, soxnaam nag ñu gën koo xam euh, ci turu Fatim Raymond mi mu nekkaloon fii nii fii nii ci Sénégal d'ailleurs sax amoon nañu nationalité sénégalaise euh, jàpp na ni fële na la ca diwaanu Tchad amul benn cérémonie boo xamante ni war nañ ko fa mën a ambal ndax ba suñu joonu yàlla tey jii teguñu isan abré place am si toutefois nag setal nañ fa deram ba mu set wecci loolu dina mën a tax mu dem def fa benn cérémonie rendre ko fa hommage jamono ji nag ci xuccoo bu méttee méttee métti lañ nekk moom Fatim ak beneen soxna abre ba nekk ca diwaanu Tchad soxna soose nee na seen abré dinañ ko jébbal boroomam ca Tchad defal ko fa levée du corps ak lépp loo xamante ne da cee war waaye Fatim Raymond veuve bi nekk ci euh, Sénégal nee na euh, levée du corps bi Sénégal lay xewee enterrement bi Sénégal lay ndax Tchad mérité wu ñu li nga xamante ni moom moo di kooru Hissène Habré en tout cas lu ci mënti am daal nañ jàpp ni maître Malick Sall mi jiite wàllum justice bi nee na dañoo fasoon yéene Hissène Habré bu wëree ba génn hôpital ñu daal di koy takkal benn bracelet électronique yóbbu ko yóbbu ko këram ndax feebar bi demoon na ba tàmbalee leen a jaaxal teg ci tamit ay avocat ñoo ngi doon ñaan loolu ba ñu tàmbale woon sax ni dinañ ko signé waaye boobu rek fekk na suñu borom ni la rek fa mu jëm gënal ko fi mu jóge ak yërmande rek suñu borom di jaala ay mbokkam bu baax a baax daa di wéyal suñuy xibaar ci accident ba amoon na ci diwaanu kaw Kaolack boobu nag ñu doon gis benn camion malien daal di yëg ci benn taxi ñu ci bari daal di ci ñàkkee seen bakkan daanaka sax benn nit dong moo ci jotoon mucc bakkanam waaye ba suñu joon yàlla tey ji ma ngi ci hôpital ba Euh, manifestation yu bari amoon na ca diwaanu Kaolack ñenn ñi jëloon nañu ay mool ak yeneen ngànnaay doon yàqate euh, camion malien yi fa nekkoon ndax nañ ni camion malien yi lu muy faral di def accident Sénégal dafa bari teg ci tamit lu muy faral di yàqate euh, dafa bari ba ñuy amal manifestation ya ca diwaanu Kaolack Mali tamit jëloon nañu seen ay ngànnaay doon yàqate camion sénégalais ya fa nekk coow lu méttee méttee métti mujjee manifestation talpuna ak yeneen ak yeneen yu nu mel tax na sax ba takk deri ñoom ñoo mujjoon a teew sur place ngir calmer situation bi boobaak léegi nag ministre euh, des transport ak bu Sénégal ak bu Mali doon nañu waxtaan seen biir xool naka la ñuy def ba calmer situation bi euh, tey jii ci àllarba bi ñu nekk ñoo ngi ñuy yëgal ni euh, camion ya nekk ca diwaanu Mali nekk ay camion sénégalais ak camion yi nekk fii ne ci Sénégal nekkoon ay camion malien trouvé nañu terrain d'entente ba tàmbalee waat nañu seen transport ale ak bu ko defee ci wàllum sport mbirum làmb la ñuy daal di euh, sare ak yéen euh, tafaatin nag jàpp na ni dafa jot Pape Thialis Faye daal di jàpp date euh, ci novembre bi nii ñu nekk ndax kombaam ak komba Balla Gaye Bombardier ñoo waroon a tegalantoo daanaka benn semaine dong moo leen rawoon ginnaaw ba ñu ko reporté nag Gaston Mbengue def na le tout ba daal di trouver benn dat muy ci mois de novembre bi donc dafa jot Euh, Pape Thialis jàpp date ci mois de novembre boobee comme seen combat yi ni ñu waroon a tegloo te gis na ni nag li muy euh, seet ni euh, bu moytuwul lekk Pape Thialis dina jàppat beneen date bu gën a sori te moom loolu du ko fi xaar donc mi ngi koy alerter ca na mu gën a gaawee rek mu daal di jàpp date moom ak Boy Niang ñu bëri li ñuy bëree ndax ñu mën a libéré wu. Bira Sène mi jiite wàllum CNG moom mi ngi yëgle ne ñu jàpp date yi na mu gën a gaawee ngir que mbër yi nekk sous contrat depuis un an jàpp deux ans ñu mën a libéré wu nekk ci beneen beneen anam Gaston Mbengue moom jamono ji dadu ci bari jàpp na ko xanaa di xaarandi rek saison boobee daal di ubbi ak jàmm ak salaam suñu borom yóbbu ñu ci tamay ñu wér. ba tey ci milieu làmb buñ ci desandee ak yenn Balla Diouf nag daal di nay def uh, benn sortie di alerter uh, ki jiite wàllum làmb ak bépp autorité bu nekk ci réewum Sénégal ñu daal di jàppale Mbayang Loum Mbayang Loum ñu gën koo xam uh, ci làmb li muy woy lu neex rawatina fële le ca diwaanu Adrien Senghor mën nañu sax làmb buy faral dafa am Mbayang moom moo koy woy jamono ji nag santem taga tembe mu feebar feebar bu metti boo xamante ni nag dépensé na ci lu bari Balla Diouf nee na nañ ko daal di taxaw képp ku nekk axlu làmb wala ku ci nekkul rawatina euh, kii nii di Bébé Saloum nga xamante ni dafa amoon euh, problème justice booba ak léegi nag mu ngi ci kaso bi euh, jàpp na ni dafa jot ñu daal di leen di jàppale ndax buñ nee milieu làmb social la cee war a am buñ nee milieu làmb jàppalante da cee war am te Bébé Saloum xale bu ndaw la boo xamante am na avenir bu mu war a mën bu ñu jàllee ci diwaanu Pikine gis nañ ne nag combat yi dafa tàmbalee di faraar lool wala sax ndam lim fay faral di am bariwul ñenn ci écurie yi dinañu toog lu yàgg duñu dégg benn promoteur bu leen tëggal combat yeneen ci écurie yi dinañu am combat mais du ñu faral di am ndam lu ci bari looloo waral nag journalu suñu làmb daal di xëy ñoom samp am laaj nee na ba xam jotul nag écurie nekk ci diwaanu Pikine ñu daal di fusionné wu nekk benn jàppale ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo fay bëree waaye première réaction action bi euh, pal Diop dafa euh, du lenn lu dul euh, dafa jot nag ndaw yi bu ñu duggati ci làmb ñu daal di jaar ci écurie yi lay defar formation xamal la lan mooy bëre jàngal la ay technique gu bëre teg la ci yoonu bëre moo gën nga ñëw rek bëgg a bëre dugg ci écurie boo xamante ni mënu la yokk xam-xam looloo waral nag écurie yi di fees ak ay mbër yoo xamante ni pour ñu avancer ci seen carrière dina metti lool en tout cas li te wóor mooy loolu war na mën a nekk ndax ku gis fas Ndakaaru ni ñu fusionné woo doon benn donc écurie nekk ca diwaanu Pikine war na mën a doon ah, benn ñu jiitu gestu ñu ci ginnaaw ah, jàppale leen tàllal leen loxo ba ñu àgg fi ñu bëgg àgg. ñu daal di tëjee suñuy xibaax ci coow bi nga xamante ni moom la ñu xëy di ko dégg ah, mu dox ci diggante naa Dieyna naa Baldé mi amoon doom ak Diop Iseg nag ak Birk Faye Fall ñoo ngi ci coow bu méttee métti boo xamante ni dañ ci cité ay vidéo yu compromettante ak yeneen ak yeneen yu ni mel en tout cas li wër mooy coow li daal dinay àgg foo xamante ni Dieyna moo ngi en fi à vue waaye du yàgg dara ñu daal di ñëw ak yéen ci benn vidéo jox leen plus de détails ndax auditionné nañu ki nga xamante ni moom moo di na bu ñu ñëwee ak yéen ci jàngoroy coronavirus bi troisième vague bi lëmbe réewum Sénégal jamono ji nag euh, comme ni ngeen ko gisee rek kaa yi daal di nay euh, baissé lool waaye askan bi dañoo tàmbalewaat di amal seen ay rassemblement ñenn ñi ñoo ngi def ay mariage euh, di ko célébrer comme niñ ko doon célébrer di def ay tente ci mbedd mi di def yeneen ak yeneen yu nu mel alors que décision bi wàccoon ginnaaw ba troisième vague bi ni ñu bàyyi rassemblement yi mbëri nag loolu moo leen merloo fu ñu tourné ñu ngi fay gis ay rassemblement ñenn ñi ñoo ngi faral di tëgg seen ay euh, soirée ci boîte de nuit yi na mu ca waree jamono ji nag li nga xamante ni moo ci gën a doy waar troisième vague bi moo ngi tàmbalee baissé nit ñi tàmbalee fecc waaye spécialistes yi lexte nañu bu baax a baax a baax suñu njiitum réew ak ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr waaye tamit ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome que ni euh, métti métti métti ci inondation yi bu ñu fàtte mukk di sensibiliser askan bi ndax jàngoroy coronavirus bi quatrième vague bu fi dukkee rek dina tagga tembe lool lii di di koom-koomu réew mi ba tax na mbokk yi li lañ leen indi loon seen xibaar revue de presse jaajëfal leen ñëpp jox leen dig daje ba suba ak jaam incha allah jërë ngeen jëf